asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi ñoo ngi amaan mbégte jàkkaarloo ak yéen fii ci kër Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké noonu ma leen ko waxee woon léegi ci ziar bi nga xam ne Serigne Cheikh euh, xëy si na def si ko ci Serigne Mountakha ngir waajal bis bi nga xam ne moo ne ci sunu kanam di bisu bi ñuy dajale addiye ji di koy jébbal ki fi nekkal Serigne Touba waaye di ci fetliwaat nag pas-pas yi ngir di ci dundal guddik Serigne Mouhamadou Rokhaya Mbacké Serigne bi xëyoon tey ji am ziar ba noppi nag am kaddu yu muy yëkkati jëmee ko ci mboolem talibé yi waaw ginnaaw bu nu sant yàlla sunu borom tabaraka wa taala noo ngi ñaan sëriñ Muntaxa yàgg fi lool te wér sëriñ Muntaxa Mbàkke yàlla na fi yàgg te wér yàlla na fi yàgg lool te wér ba àggale mboolem naal yi nga xam ne eh, fekk na ko fi muy naal yu ay waajuram tàmbali woon ak ay magam mu àggale ko nam ko bëgge ba tàmbali naali boppam biir naalam yi nag nun taalibe yi dañoo bokk ci naal ndax lu sëñ bi defar na muy defaree université be noonu la war a defaree taalibe yi taalibe yi benn bu ci nekk te maa ci raw ku mat ñu mat defar la nu defar nu rek doy na ab liggéey waxantuma laa nag université yeeg li war a def ci jumaa jeeg li mu war a def feneen kon nag ñun ñëpp nu ñaanal ku mu yàgg fi dafa am nag loo xam ne lii eh, sëriñ Modou Rokhaya Mbacké la koo tàmbale woon sunu wayjur eh, di dajale addiya di ko jox ku fi nekkal sëriñ Touba ginnaaw ba nga xamee ne wayjuram sëriñ Modou Mamoun ba ñuy woote jumaa ji dajale woon na junni teg ci almet ginnaaw ba ñu toog lu yàgg eh, defaatuñ ko nam ko defe woon suñ Moodu Rokhaya woote waat ko ñu dajale lépp loo xam ne ab taalibe bu dëkk dëkk na Daaru Salaam te bëgg a jariñu bëgg barkeb addi suñ Moodu Maamun joojee ak barkeb addi Cheikh Sidi Mokhtar jëm daan jox Serigne Touba ak barkeb addi sëriñ Modou Rokhaya yim daan jox njabootu sëriñ Touba mu am ca barke ba ñu di ko woo bëgg àjjuma mu ñëw gaaw àjjuma gaaw bi mu ñëw lépp lu mu am mu andi ko te lan amoon daaw nu fexe ba am lu ko weesu mun munta am lu ko ñetti jaat nu am eh, lu ëpp lan amoon daaw lu bëree bare bëri daaw andi woon nan cent quatre-vingt-onze millions yu teg ren nag xeeb nañ lool lool kon nag taalibe yépp ñu ngi leen ciy woo di leen xamal nag ne bu ajjuma jaa ca ngoon am na kër gu ñu defaral sëriñ Modou Rokhaya ndax bi mu fi nekkee addiye taxoon na mënutoon defar kër at loolee ko gàllankooroon ba mënut defar kër nag muy addiye wàccunu waaye nu fas jom yi defaral ko kër goo xam ne gii dana dana yeyoo ak jëmmi Sëñ Moodu Rokhaya kër googee nag defar nañ ko ba mu àgg incha allahu bu bu ci bu ci bu ci xiiwali Serigne Touba àndee moo koy ubbi si moo koy ubbi si bu bu àjjuma ca marax ñu bëgg taalibe yëpp ñëw fekk ko fa. mu ñaanal leen ñu am li ñu bëgg kon mel ni ji addiya mosunoo am addiya ju ni mel sëriñ Tuubaa ñëw ba agsi ñaanal ñëpp kon nag maa ngi ciy woo sunu mbokk yëpp di ko tàmbalee ci sëriñ Jili Mbàkke sëriñ euh, Siidi Mbàkke moom suñ Ibra Dar sëriñ Alaaji Mbàkke suñ Siidi moom sëñ Mustafaa Caytu ak seeni rakk njabootu El Hadj Sëñ ak njabootu maam Cheikh gépp li ko dale ci njabootu Serigne Modou Mamoun ba ci njabootu Sëñ Abdou Góora nañ ñëw saafonte ak Cheikh Mouhamadul Muntaxa àjjuma buñ jullee timis ba noppi ñu ngi ñaanal ñëpp nag di bëgg eh, bu sëriñ bi duggee Daaru Salaam ba génn genn tumuraanke dootu fa am jenn tawat dootu fa am tawat yëpp saafaraw ko tawat yëpp saafaraw ko ñaanal nun ñëpp ñu ngi sant euh, waa euh, mi académie ci seen taxawaay yu rafet yoo xam ne lépp lu lépp luy rafet doxinu sëñ bi ak doxinu taalibe yi danañ ko wone kon nag yàlla na leen ak sëriñ bi jàppale ñoom itam suñ suñ Muntaxa ayam gi moom ku ci jàpp rek loo jàpp yàlla jàpp ci kon nag yàlla na leen yàlla jàppale jërëjëf sant nañ ñëpp sant nañ ñëpp sant nañ ñëpp jërëjëf